bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu muy sëriñ Cheikh Oumy Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal mooy kan sëriñ Cheikh Oumy mooy kan yomb yomb naa wax lool sëriñ Cheikh Oumy doomi Cheikh Mamadou Fadal la moom Cheikhul Khadim boo nee sëriñ Cheikh Oumy mooy kan ci wàllu waajuram sëriñ Fallu la sëriñ Touba. mu gane àdduna fii nga ñu fekk tey muy ndindi ci waa waajuram tudde ko Serigne Cheikh Oumy mbay mu mag moomee bi nga xamee ne Serigne Fallou yàlla dogal na amoon na am Serigne Cheikh Oumy mu teel a wuy ji suñ borom suñ borom def ci ab dogalam mu amaat ko moom mii daa ko koy tuddewaat nga xamee ne toll na ci dalum jàng Cheikh Mouhamadou Fadal moo ko woo bind ca àlliwa ja dalal ko jàng boole koo koo xam ne maanaam mën na ne nijaayam nijaay la ci moom muy suñ maamun moom soxna mbenn moom Cheikh Mouhamadou faadal moom la ko booleel moo moo moo dalal sëriñ bi jàng sëriñ Fallu moo ko dalal jàng boole kook sëriñ Modou Mamoun moomu ne ko kii kat sa nijaay waaye boo demee na nga ko toppatoo waaye li la xamal ci laabirug sëñ Fallu rek daan na ko nag bu bu bu bu mënee bu mënee ñaar na nga ko jox benn bu mënee ñeent nga jox ko ñett ci am am mbind lay wax maanaam ni mu koy jàngale ne sëñ Maamun ba nii da koy nett leen na sëñ Fallu ko waxoon loola ginnaaw bi nag la la leen sëñ Abdu Laat toppatoo ci ci ci ci njàng ma bañ continuer ñu dem dem dem dem kuraa jaar foofu Touba Belal jo door faa jóge dem Kura moo sëriñ Abdou Samad moom soñ soy bu ak sëriñ Jiili moom sëriñ Fallilu ñoom ñëpp foofa lañ jàng alxuraan fa la nekk fa la jàng alxuraan ba suñ borom defal ko ak mu wattu ko fa bind fa ab kaamil kaamil bi mu njëkk a bind bi mu ko bindee yàlla dafa dogal ak ak ak amoon fa kaamil ba lakk bi mu ñëwee wax ko Sëñ Ablaat na ko waaw kon de dangay dem bindiwaat beneen mu daal koy joxaat kayit ak daa akub yóbbal na ko demal bind beneen yóbbu indil ma mu dem bind beneen indilaat ko Sëriñ Abdou Lahad bi mu indee booba mu ne ko waaw dangay ngay dolliwaat beneen joxaat ko comme noonu mu defoon mu joxaat ko ab yóbbal na ko demal bindaat beneen mu dem bindaat ñaari kaamil indil ko bi mu ko indee ñaari kaamil yooye nag ci ko Sëriñ Abdou Lahad doora booleeg euh, sëriñ Asa mu mu jàngal ko ci xam-xam lu bare bari fa la jóge nag ne ci loola ba sun borom dogal ci loxoy Serigne Cheikh coro ndax kenn ump la wut ne Serigne Fallou nam daa jëflanteeg mag ñi ñëpp xam nañ ko ndax sun borom dana al aqrabul awla lu gën a jege rek gën a yey sëriñ Fallou nag jege woon na soxna yi ci eh, Serigne Cheikh Thioro jege woon na soxna yi ci wàllu mbokk ca Jolof moo taxoon 1963 bi nga xamee ne liggéey na jumaa ji ba pare bi muy wutal soxna yi ay kër soxna màggat ak soxna jàmbor ma ngi leen booleeg Serigne Cheikh Thioro mënoon na leen a wutal seen bare bu bopp nag comme ni mu ko defalee ñëpp waaye nag sëriñ Fallou ñëpp xamoon nañ ko ne ku fonkoon cosaan la ku fonkoon ak mbokk la ku fonkoon ak boole moo tax 63 la leen. tabaxaloon foofee ci kër sëñ Cheikh Coro ñu nekk fa sëriñ Cheikh Oumy fa la nekkoon mook alaaji sëriñ tàkk moom sëriñ Fallilu moom la leen sëriñ Fallu boole loon man mii di wax ak yéen man ginnaaw loola man mi foofu la gane àdduna kër Baay Cheikh Coro googe kon loola cosaan la ànd bu yàgg la bi nga xamee ne loolu am na 1963 la sëriñ Fallu def loolu ñu ne fa ne ba sunu boroom dogal Cheikh Abdoul ba tey te fonk ga kóllëre ak moom it ak ni mu bëgg woon njabootug sëñ Fallu ci la leen joxe seen kër yooyu njabootug sëñ Fallu gépp mooy seen kër yooyu ci corniche ci kër sëriñ Modou kenn ku ne joxoon na la fa ñaari kër ba nga xamee ne sëriñ Cheikh Oumy maanaam tabax na këram ba sanc ko foofu lay door a jógee kër sëñ Cheikh Thioro moo ko alaaji sëriñ Tàkko loolu ñu baree bare xam nañ ko lan mooy jubluwaayam ci bis bi jubluwaayam ci bis bi jubluwu ci dara lu dul liggéeyal sëriñ Fallilu ndax sëriñ Fallu moom kenn ku ne yaa ngay jéem ca moom dara sa kemtulaay kàttan loo jàpp ne boo ko defee mu neex ko rek mu nga ne ca sëriñ Seex nag jubluwaay boobu la am bis bi jubluwu ci lenn lu dul liggéeyal sëriñ Fallu rek ak di ci sàkku ngërëmam te bi mu ko tàmbalee nag yaakaar naa ren la ci treizième édition ci jamono Cheikh Mouhamadul Amin mu demoon fa laaj ko ca ndigal mu jox ko ko yebaloon ko ci Cheikh saali ba sëriñ saali wu jox ko ci ndigal mu tàmbali bis boobee biñ ko tàmbalee yaakaar naa menn at lañ ko defut mooy bis bis saali wu wàcce ab liggéey at moom a tombeek Serigne bi wàccu liggéey boobu rek lañ ko defu ci treizième édition yi mm, ndigal loole nag di wéy di wéy ba ci Cheikh Abul Mubarak muy nekk fi tey képp ku fi nekk Serigne Fallou rek bala caa def dara dina ca dem ba am ci ndigal ren ji man ak moom ak seexum mii ñoo àndoon dem fa suñu boo na ko bala ma cee tàmbali dara kat yëf yaa ngi nii boo ne na yem fii tamit mu yem fi Serigne Abo na ko jox nañ la ci ndigal na ko daa defee rek na nga ko defee noonu ñu jóge fa dem ci seex moom tam mun taxaa jubluwaay bis bi tamit bari na lu ko waral ci li nga laaj ndax ndakaaru dañ ñëpp xam nañ ne barabu yëngutu la. te sëriñ seex la baayam waajuram wa sëriñam ba ndax ñoom sax duñ nangoo am baay si sëñ Fallu ab sëriñ la ci ñoom ndax sëriñ Fallu kat daa jaayoon njureel ga jënd ko ak taalibe te ñoom ci tànk yooyu rek lañ lañ nekk euh, ndakaaru nag mooy capitalu Dakar di di di xolub Sénégal mu ne woon dama fi wooteel Serigne Fallou bis bu bis bu mag boo xam ne àdduna bépp dinañ ko dégg mu ko daa def ca fañ naan euh, Cices ñu at yi yëpp fa lañ ko daan defee ba ñaari at yi ñetti at yi fi lañ koy defee grand grand théâtre waaye suñ Modou Mamoun li lay xamal ne Serigne Fallou moom amut tànki ginnaaw tànki kanam rek laam si ses ni mu toll ñu dem ba ne bis ba xajatu fa ñu yóbbu ko grand théâtre kon day wane ne Serigne Fallou moom amul tànk ginnaaw tànki kanam rek la la tax mu woote ko tamit am na liggéey boo xam ne ma ngi ko fay liggéeyal Serigne Fallou ndax Serigne Fallou kat dana woon jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. sëñ Fallu dara ñoru ko woon lu doomu aadama yi ak nit ñi ak sunu boroom te loola nag la sëriñ Cheikh Oumy nekk ndax wér na ne ñi ko xam ñëpp xam nañ ne ab yëngutoom ci gone yi la ko jub la ko jëmale ab liggéeyalam yàlla ndax Dakar sunu borom def na fa loo xam ne kat am na ñoo xam ne sunu borom namm na leen ci ñu ñu dox jëm ci leneen te sëriñ Cheikh mi ma ngi ci liggéeyal Serigne Touba liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët di ci liggéeyal waajuram ba Cheikh Mamadou Fadal ndax kenn wérantuwul ne gone yii nga xam ne dañ leen di nuroo leen ni naan ay di leen tudd di tudd Cheikh Ibra ñuy nur ñuy roy Cheikh Ibra ci Baye Fall ñu baree bari demoon nañ ba nga xam ne seeni mbokk ab abandonné woon nañ leen ñii seeni mbokk bàyyi nañ leen dogook ñoom waaye nag day jóg wàcc boppam ba tollook ñoom ci dimension bi nga xam ne toll nañ fa mu jëm leen a orienté jëme leen ci sëriñ bi te loolu mel na ne am na ci ndam lu rëy rëy ndax tey tey tey tey xam naa fee ñu jëm lii may wax bu ko ñu bari déggee dinañ ko mën a seere ndax mm, maanaam damaa jëlale mu doon téeméeri nit ak lu ko ëpp wala ñaar téeméeri nit waaye damay wax faral di wax ne benn nit benn nit boo ci liggéeyalee yàlla ba wàññi ko mu xelam ne ci leneen loolee rek doy na ngërëmul sëriñ sëriñ Touba doy na ngërëmul yàlla doy na ngërëmul sëriñ Fallu kon nag sëriñ Cheikh Oumy ci loola la nekk maanaam kenn ku ne ci ñoom maanaam teg na la foo xam ne leer na la say waajur teguñu la foon ba ba lam bëgg ci yow mu am ko mat nañ ci seere ci ñun ñii sax dama dañuy faral di wax ne goney Baay Faal yi moo moo moo ma leen ñoo ma leen gënal ndax dañoo bàyyi seen ndey bàyyi seen baay ñëw ci man taxaw ma lu tax kon nag awma lu dul ñoom kon it na ngeen ma leen jàppal ngir yàlla ak jëmi Sëriñ Tuubaa kon kooku am na lu mu nam moo liggéeyal yàlla loolee nag suñ boroom am defal na ko ci ndam bu baax a baax a baax ba dem nañ sax ba nga xam ne gone yi am na ci ñoo xam ne amee amee nañ fi ay métier ñoo ñii ay ministre lañ ñii ay mason lañ ñii leneen ak leneen lañ lépp nag liggéeyal suñu borom rek moo ko waral. alalam am soxlaalu ko lu doomu aadama yi lu mu am fa yéene koo bokk nit ñi sax taxaw ak njabootam taxaw ay taalibeem leneen la ca des nag mooy euh, dañ ne ndimbal na ca fekk loxol boroom ndimbal tamit na ca fekk nga dimbale ña nga war a dimbale waaye boo nee ba tey sëriñ Cheikh ci ak wàllu wàllu mbokkam ci ak baaxam ca la ko tàmbalee man mii di wax ak yow mat naa ci seere lu ne ci àdduna defal na ma ko loo xam ne maanaam ñëpp teg nañ seen bët sëñ Modou Mamoun nit koo xam ne ba ngay ba ba mu lay may oto booba yaa ngi ca daara de di jàng ko di jàng alxuraan kookee kon xol xol xol foofu la mën a yem. nit koo xam ne bi mu lay may kër to amagoo matagoo sax am am am am am kër mu wutal la kër fàggul la ko kookee xol bu rëy fa la mën a yem ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënee su ko wax nit ñi ba ba may may oto man mii nit ñi dañ ne sëñ sëñ seexum mi de Lamine mii mu may oto mënoon na koo mënoon naa jaay oto bi eggalee ko këram ci baax rek loolu day na day na benn exemple te defaluma ko man dong ci man la ko tàmbali waaye defal na ko ay mbokk yu baree bari kon loole ci qualité yi sëriñ Fallu la bokk liñ lim ne sëñ Fallu may na ko ay oto maye na ko ci ay oto liñ wax ne sëñ Fallu dimbale ko dina ko ci ay nit liñ wax ne sëñ dimbale na ko ci ay doomu aadama ñu dem Màkka kasaalika na ko noonu noonu lay dimbalee ci ay taalibeem ñu liggéey ñii di tukki ñii di defi leneen ku ko ci bëgg noonu lay dimbalee ay mbokkam tamit kon loolu ci ci ci ci ci ci ci ay ay ay qualité am la bokk waaw ni ngi koy ni ngi koy ñaanal nag ci barkeb sëñ Fallu lim yéenee liggéeyal waajuram bu baax woowee moo xam yàlla na ko yàlla mottali li nga xam ne tamit mu ngi koy sàkku ci bis bi muy liggéey sëriñ Fallilu yàlla na ko sëriñ Fallu jàppale ba fa fa mu ko bëgg a eggale mu eggale ko fa di leen sant bu baax a baax tamit yéen communauté bii nga xam ne yéen a yor wàllu organisation bi yaag sëriñ Modou ak sëriñ Cheikh Mey ak sëriñ Fallu ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant ci ci taxawaay bu baax a baax ndax nii ngeen ko defee fii noonu ngeen ko fas yéenee defee feneen ñoo xam ne ci bis bi lañ leen tudd muy El Hadj Mor ak suñ ak suñ Yaafiya Ñang nga xam ne loolee rek maanaam dundal na loo xam ne niñ deme woon ci kër Sëñ Fallu ak ni ñu deme woon ci ci yoonu murit waxuma la dara waaye di leen fàttaliku rek nit ñi am luñ xamaat ci moom loola rek foo ko làmb kon ci liggéeyu sëriñ bi danga koy daj kon ñu ngi sant bu baax ci teewaay bi ak jotaay bi di ñaan ñu fekk ko jàmm